GPS nekk entreprise de production et d'expression de support de communication et de publicité ak directrice ba madame Ndiaye desuñu ginaaw ci wote meeru Anne bel ngil ngir ñeel xeex ak gantal lawum jangoro bi di coronavirus. entreprise bi nak da dina jébbal ki di mère bi ay produits détergents ak produits hydroalcooliques ak moyens financiers. xeebar bi egg na fo xamantene tay tey képp ku nekk rek war na am taxaway bu mu ci taxaw. te olof daf ne bay ci say woomu tànk ñun Dakar lañ dëkk Sénégal lañ dëkk Dakar lañ dëkk waaye yàlla mi ngi def ñu nekk ci commune Hann bel kon bu ñu fiy yëngatu nekk ay ay jeunes nekk yore société sénégalaise lu mel ni ñëw dal ci àdduna bi yépp te ñun Sénégal rëccuñu si lu mu tuuti tuuti war nañ ci dawal suñu yéene bokk ci xeex bi te fii amuñu fi kilifa bu gën a màgg monsieur le maire mii kon suñu amee benn action bu nuy def rek dañu war a ñëw te dañoo war def action. dama siy woo nag société yépp bépp structure boo xamante ne yaa ngi ci gox bii ci Hann bel muy Hann Mariste muy Hann Marinas ba si les petits commerces ku nekk na ñëw def participation ndax mbooloo mooy doole ku nekk boo amee sa benn carton wala loo am nga ñëw indi wala sa benn 10 000 francs sa benn 50 000 ñëw indi ko fii ci mairie bi soutenir mairie bi ndax lépp day demaat ci askan bi day demaat ci gox bi fii amul dara lu fi ñëw di fi toog lu ñëw da kay dem moom nag mooy autorité bi nga xamante ne moo gën a am sañsañ ak yelleefu tey dugg ci gox bi fu ne lam fa war a dem mu yóbbu ko fa loolu moo tax ñun ñu xalaat ne tey bu ñu amee action bu ndaw bu ñuy def fii lañ ko war a defee fii lañ ko war a indi feebar bi fi mu toll nii yàlla dogal na amaguñ ci carrément lu loo xamante ne dañ lay piqûre doo ko am wala naanal garab bi doo ko am li ci tax mucc nit ñi mooy moyen de prévention yi wax nañ ko yokk cet gi moo tax ñu indi produit yi ñu indi moytu rassemblement yi nga xamante ne ñu ngi koy def te amul solo mën na ñàkk ku nekk toog këram boo amul lu am solo looy doxi nga toog sa kër moytu di di di saafoon tey comme nañ ko daan defee xam nga sénégalais dafa bëgg ay accolade ak ay nuyoonteeg yooyu ñu bàyyi ko loolu ñun loolu lañ mën a jàppalee suñu bopp jàppale ko suñu autorités yi ndax bu population bi sonnee foog autorités yi sonn duñu nelaw tey ku sañoon sa njaboot dara du ko dal. mu nekk lu Babacar Mbengue maire de Hann Bel-Air rafetlu di leen jaajëfal ci cadre conseil municipal bi yépp ak askanu Hann ba pare di ñaax entreprise yu nekk fii ci commune bi dugal seeni loxo ci bile bataille ngir ñu gën a mën a jàmmarloo ak corona. koo xamante ne xaaruloo ñu saisir la koo xamante ne da nga toog de manière tout à fait spontanée nga ne ah man war naa dem fa ma ko war a yóbbu. pour que nous bi aussi ñu apporter notre participation donc c'est un exemple à suivre et d'encourager aussi les entreprises de la place à ce que li nga xamné moy les moyens de bord ce ci ko c'est pas forcément de l'argent waye lepp lo xamante ne way la bo xamante mën aider à ce que nous atteindre nos objectifs je pense que tay lolu nañ fi gis donc li mu je remercier vraiment au nom des élus mais remercier au nom de toute la commune de Hann qui est ci Binga bi nga xam du bu parce que xam naa ko action yu Yumidef. yu en tout cas gis naa ko ci fànn bu donc vraiment en tout cas modèle entreprise sénégalaise le aussi parce que nous, ci dañuy faral di RSE nous négocier mais dafa am fait xamante ne dañuy dund social donc action communautaire de faire xamante ne du ku nekk nag mooy am le même ressenti. c'est juste une question de conscience citoyenne li ma mën wax parce que entreprise yaa ngi fi ku ci nekk xam nga li war ku ci nekk xam nga li la war ñun forcé wuñu entreprise à ce que mu ñëw def action mais daanañu rafetlu bu baax a baax en tout cas ci moment bi ñuy traversé entreprise yi nga xam ne ngi ci commune bi ñëw en tout cas faire des actions sur la population même bu faites ne entreprise bi vers la mairie mais ñu gis sur le terrain ñuy def de la sensibilisation parce que liggéey bi un niveau de collaboration et de solidarité Donc, je pense que si bu entreprises comprennent entreprise yëpp comprendre nañ avancer dans ce sens li ci des nous constaté, c'est constater en tout cas le silence de la plupart des entreprises parce que bari na fi ñoo effectivement di mais en tout cas ñun comme on le fait à chaque fois que ben entreprise ñeu fi dañu fessel bu baax baax taxaway bi nga xamné tay euh MPS Amnako ko en tout cas euh, ci li nga xamné mom moom mom moom def donc pour xex Covid 19.